salaamaaleykum mbokk yi aka aka yaakaar na ko def nu ngi koy nuyu lu mag santam di leen wax ne dal leen ak jàmm fii ci seen ak seen bu mag bii nga xamante ni mooy AGE mooy ka ki. Euh, Africa waaw ka Africa. Global Express Express TV nga xamante ni mooy seen bi nga xamante moo gën a mag ci àddina bi yëpp. Euh, fi nga xamante ni seen information fi la ko ak kii di jëlee ni ko waa LFI ak waa. waa France 24 waa TV 5 ak waa fi la seen xibaar ñun ñi nga xamante ni ñun fii xibaaru ñànk ak mënumbe. Euh, tey li gënoon a fekk ci seen ah, bopp xibaar yi nga xamante ni mu ngi dox ci diggante ak nga xamante ne sax ak ak waay ah, Diagne borom leen waaw kay Barthélémy Dias waaw waaw jàmbaarloog bi mu amoon ak takk del yi fële nga xamante ni affaire mujj na métti loolu xam nga su fa jógee li gën a fës tam bokk na ci ak Bombardier ji ak Balla Gaye seen combat bi. waaw ca làmb ji la. ah te moo ngi noonu ah ñu doon leen benn générique après ñu dem ñëw gën a leeral xibaar yi. acca maa ngi noonu gars yi Bombardier ji ak Barthélémy Dias ak ak ak ak ak sax. ak ak convocation bi nga ko convoqué. waaw waaw. waaw euh, sunu sunu sunu ndaw. yaakaar ni ko Fatoumata Fatou madame Diallo. waaw demaloon nañu foofu noonu xaal ñu déglu ko mu indi ci ay tuuti leeral après ni tey ñu daal di convoqué woon kii di Barthélémy Diaz ngir mu daal di dem wuy ji convocation boobee nga xamante ne nag bëccëgu tey gi Ndakaaru tàng na lool li ko waral rek convocation boobee bokk na ci Barthélémy Diaz mi nga xamante ne nag nee moom moo fàtt lutteur bi di Ndiaga Diouf nege ni tey ci suba jàppaleen ne kii di Malick Gakou Barthélémy Diaz Ousmane Sonko ñoom ñëpp teg nañu leen loxo ñu def lu ni mel nag moom moo di ndawal police ginnaaw seen démembrement boobu nga xamante ne nag ñu ngi koy woowee bip bip mi nga xamante ne nag tey dafa déterminé woon rek daal na dina yóbbu kii di Ousmane Sonko yóbbu kii di Barthélémy Diaz waaye yóbbu tamit ki nga xamante ne moom moo di Malick Gakou ba ci Khalifa Sall wax ju leen wax wax ju leen merci beaucoup madame Diallo ñëw na waaw waaw mënu be waaw sama ngay ah kay ah nu tudd ta ah. Badara Mbita waaw. na lu wuy ki. ay fan wuy ki. xanaa première heure ba la. ban la. yow la ñu waa Sonko la ñu woo damaa bëgg laaj. kese bi Barthélémy Dias woo. mu dem di wuy ki ak ñu di fa ay problème. mais walaay laaj. waaw Barthélémy Dias la ñu woo wala Sonko la ñu woo. Barthélémy Dias la ñu woo. mu amoon problème ñu woo ko. Sonko la ci yoon da koy gunge. mais mais mais ñoom dañu fee xarit noonu. waaw ba ba Sonko fi nga ko woowee Barthélemy daa demoon. waaw yow Barthélemy demut woon. waaye bii paa Barthélemy de ànd ak Sonko de wuyu ji Sonko da koy gunge. moo tax wuy ji na moo na fa ba après. ci xaalis bu feeñ na mbaxaneem feeñ na feeñ na waaye ba mu def waaw kay feeñ na waaye bi muy laataa feeñ gaa fu nekk dem nañ foo wëlloo ko benn booy taaliba lañ lomb ne doxaa yoroon doon ko ko booy bu bu bu bu jaawal li mbaxana Sonko ñu soo ko jox cent franc jël mbaxaneem jox ko Sonko mu <laughs> bi mu def conférence de presse poussière baa génn ci mbaxaneem mais loolu garaawul waaw waaye li ma la wax waaw nag ko tribunal waat na baat la yaa ngi lee de tribunal waat na baat li mu jaar waaw kañ la ko waat nii as actuellement nii. waaw Barthélémy war naa wuy joor. waaye Barthélémy li mu wax mooy neen demul. non dina dem de day dem de peut-être wax ji mi ngi koy wax daa fekk mu mer xam nga boo meree mën nga def toj toj wala nga wax toj toj affaire yooyu bi muy wax naan demul daa fekkoon mu mer mais instant yi bu toogee ba giif moom intellectuel te nandite la day dem moom ragalul kenn day woy ji. lagalul kenn ah, waaye xam nga xam nga kenn du ko wax kii waa problème bi nga xamante ni ñu tax ñu gaay woo ko mooy problème bi mu fi amoon. Ah. ak nga um, kay nu tuddoo kooku ay. Ah, Ndiaga Ndiaga Diouf nga xam ni. kii jamono waa Ndiaga Diouf boobu problème boobu. nga xam ne xam nga Barthélémy Dias wane woon mu yor ay ay épisodes. waaw loolu yàgg na parce que ñooñu dañoo bëggoon dal ci kawam après mu faat ko. moo ko faat waaw moo ko lay moo ko wax di damay yow damay yow moo ko lay wax léegi. gis leen daal mu tiire. xamuñu loo ko rey xamuñu ah. yaa moom xaw ma si dara de wóoru ma de. waaw léegi nag waaw mënu may mënu may wax na wax. ju leen déet bul ma dugal de ñànku dañ ne wóoru nga ba xam moo ko rey wala rey ko bu wuy jee daal lu ma rek loolu la. <laughs> ko dugal nga yor. waaw waaw mënu ma naan teel a moom moo ko bëggoon dugal ci mbaligé pour gars yi woo ko waaye mu dinaa daw génn. ah la nga xam ne moom taxoon ñu woon ko mooy Kaawa Aka Ndiaye Ndiaga Diouf foofu noonu. nga xam ah. dañ koo dóoroon pété ak pétal te gisoon nañ Barthélémy yor pétal pétal après léegi nag moo tax ñu woo ko léegi nag da waa war a wuy ji Barthélémy ah, dafa lay ñaan ak la ba si lay kalim waaw waaye woo nañ la dama wuuj xam nga lu tax. waaw soo wuujuwul. waaw mën nañoo ah, mën mën mën mën a nekk foofu li ñuy léeg-léeg. Ah. na la yaa fi def nangam te boobaa doo ci ma ma weddi tuuma du lagal. c'est vrai léegi dama foofu noonu nga ne du yow. nga lijjanti li ngay lijjanti wala ngay gaa dañ maa noo ah, lijjanti sa yow daal fexal def say pexe moom garaaw ba waaye toog sa kër naan demoo loolu moom non moom dina dem dina dem loolu na ko pour bañ ko gunge ah demal gunge ko Sonko ak Barthélémy ay xarit lañ bàyyi ko mu dem gunge ko mu dem wuyu ji. gis naa gis na tamit kii. gi ji. Oh, <laughs> rek. waaye ji Mère Sagna bii faa si oto bi la dugg. gars yi mu ne du eh, eh, eh, am na keneen ku ñu dugal. borom géej waay. kale déedéet. kanam xam nga borom géej waay. waa ji waa jooju. dëgg géej waay. dañ dugal ko ci oto bi. ñu ngi tudd kii maa ngi loxo bi simeeku gars yi dañu <laughs> loxo bi laa simeeku <laughs> maa ngi gaax mais gars yi nag seen na doole. non kii koo Père Noël lu mu tudd sax mooy paa bi ah, Khalifa Sall moom tamit. yow Khalifa Sall ngay woowee Père Noël. waaw moom xam moom la seen papa comme yow. kon kon kon Père Noël. waaw man tamit ci la bokkaale mais coalition am a doole. a kek saa faral li ma leen wax mooy man na Barthélémy da nguyu. waaw yaa de nii la. Ah, di leen a fees waaw ah kon nga. fu ah. a Balla Gaye 2 moo gënoon fësoo tamit ci xibaar yoo xam ne moo nekk xibaar sport B52 ak Balla Gaye 2. Ah. ñoom ñaar ñoom ñaar la ñu. 2 2 Balla Gaye <laughs> Mboul ak ak Mboul ak Guédiawaye. Ah. ñu jàmmaloo nag nga xamante ni ah, kii nga xam ne jàkkaarloo kii Balla Gaye daal ci amoon daal ci amoon defet moo kii daal ko daal koy daanoo. Bombardier Bombardier waaw jamono yi mu ngi fekkoon Bombardier Balla Gaye nekkoon ci ay jafe-jafe. waaw waaye ay tawat yoo xam ne yoo ko am ay taab ci tànk yi. ah bopp bi am ay taaf yu balee. ba ay ay waaw. moom la la. ah la ma ma ko gisee loolu ma waxoon de mu ne sama genn wàll bopp yi ay potentiel yi ay table la. moo tax ma hmm. moo tax ma ma. moo tax Bombardier daanoon ko. waaw moo tax léegi ba amul amul potentiel am picc sax am xo. amul dara amul picc amul dara kon le premier janvier dina leer. léegi nag Bombardier lay problème bi ñëw na wala ñëwul benn sew sew da cay am. Hmm. nañ dem xool Bombardier ah, combat bu mujj bi mujjee am. waaw ah, ah moog Balla Gaye numéro 24. Balla Gaye numéro 24. waaw Balla Gaye numéro 24. xaaral bàyyi ko mu bàyyi mu tudd Balla Gaye numéro 24. xaar xaar xaar lu tudd. ah ak euh, ak euh, ma ma ma ma Malis Malis Malis. waaw waaw ak euh, Mal Malius. ma ne la Sadio dama xam ne articulé ah, normal. articulé sa gën a baax mais mais waa ji tubaab mi ngi tudd Malius. Malius nag moo jàpp moo moo jàpp bomba bombardier waaw war ko ba mu mel tëgg dëgg ñawal na ko benn coup boo xamante ni coup bu spécial la xaa xool coup bi foofu fekk yi ah lu ok luf luf fagal ñu coup bi rek ñu dem ñëwaat ñu xool nu mel aca mook may mun a ale diablo takich kopnięć przyzwyczajony nie jest munu mel waaw coup ko lan man dama Bombardier man damay baare léegi Bombardier nag moom moom moom est-ce que bi bi muy signé contre la combat waaw gisoon na xëcc avion ah gisu ko woon après la ko gis bi combat bi jàllee la ñu génnee ay xëcc avion ay xëcc bato yooyu noonu la ñu génnee xam ga heure passé wu lool waaw ah. suñ la waxee ne da ngaa war a bëleeg diw waaw ah, war a xool alielam xool fi mu jaal xool li ay ñala ñal xam kooku mais ba ma jee champion la de nekk champion bu nekk loon champion day faatu mais champion moo tax deewul ba ma jee di ngand yow yow yow mun na mais kon dóor ba mu fenkoom kooku yaa yaaram daanaka yow saa yi dóoruñu ko benn coup kese la Eh. xam nga ku ñu dóor mooy ku ñu jàpp di la rabaat di la dóor di la dóor ba nga sonn mais benn coup la te da kaa baare woon kacamu daal fala woon nañu ko rek waaw combat waaw ah. Bombardier daal dóor ale waaw soo waa ji dóor tàng Bombardier génne ko munu ko ñil wàcc waaw boo wàccee jàmbaale na ko ah kay Sénégalais la te dafa ah. demoon daa koy représenté Sénégal dignement ah. waaye lenn lekk moo fi ah, na fa am ay jafe-jafe tuuti parce que pour boobu noonu waaw espoir moo demee noonu tey da ngay da ngay la waaye lenn la ñuy ñaan waa CNG ñi nga ne ñoom ñoo yor waa làmb ji dañ leen di ñaan ñu woo Balla Gaye waxtaan ak moom fii waa kii xawma lu si la xawma waaw xaw fi mu dóoloon noonu Balla Gaye bu mu fa dóoloon Balla daa sëñ loolu waaw Balla Gaye sañ naa xool ñu dóor fii ba Mbaye mu daal mu ñëw di fa dóoraat. wóor soo dee entraînement ah. foofu rek lay natt ak yow. mais mais ni may waxee ak yow foofu rek lay jàng fi mu toll nii baare rek. entraînement ba Mbaye. baare rek kon kon kon dina gën a neex. ah ñu préparé ak le premier janvier. dafa xaar waa kay ñu ngi ñaan Balla Gaye rek ah, ba si laay kër ñu ngi koy ñaan ànd ak ay. ay ay xaritam ah, man frère. waaw ñaan waaw waaw waaw waaw kon ñun ñaar moo tax la sœur fekkee kenn mooy wax bu ah, a ah. jàng naa ko. waaw jaamaa la de noonu la fa demee nag. ci combat boobu noonu le premier janvier ñu ngi leen jox dig daje. waaw ci euh, kay. Euh, arène nationale ci arène nationale le premier janvier. di leen jox na toujours ah euh, kay daje fii ci kii AGE. AGE ah moo kay. Africa Africa Global Express TV nga xamante ni moom mooy seen bi boobu actuellement di jox information yu wér te koy di leen jox dig daje mënu ma tàggatool ñu daal tëj ba beneen yoon. ok merci beaucoup ciao ciao bye bye. mënu ma tàggatoo. waaw loolu la lay wax ni merci beaucoup ciao ciao naa doo yàgg ci télé parce que yow ni ngay tàggatoo noonu du noonu acca mbokk ñu ngi leen jox dig daje ci Africa Global ak naka euh, ah, express sa tax ma lay bëgg nga di nga koy wax ma koy waxee la moom man sa sa man day fa yàqu te amoo ay bëñ sa jaar daa yàqu Africa Global Express. Africa Global euh, Express euh, TV ñoo leen ciy jox dig daje ci yeneen numéro. acca bisu bisu baay baay bonne nuit acca beneen yoon. Hmm?